moom mètre carré bu gën a yaatu. jaay ma keneen ku bëgg a jënd mètre carré ñaari façon am mooy lamb léegi joxe mètre carré wala nga jël ci sa wéef dugal ci 77 dégg nga fi leen ma def ma ne ku bëgg fi nga toog. jëlal sa numéro bi 77 la 545 99 91 am na Wave am na Orange ku bëgg a jënd mètre carré laa wax te jëkkoo ko fi nga toog wala nga may seetaan ci caméra bi te bëgg koo def jëlal 77 545 99 91. li wax léegi ci dalil yi neewoon na yalla neena ko tabax yonent neena ko tabaxal yalla jakk ju tol ni takku bi mu dox la al aljanna ay jende nak buñ ko waxe moy taxaw bu ko sa bët yem tourné ba sa bët yem lepp nga mom ko te yalla la koy jox ki ta jende mètre carré bala ma jël mètre carré bi ki nga xamne way juroom dafa gennatu na te bëggo jëndal mètre carré ndax man ci bàmmeel ya kooka ko jëndal ki nga xamne borom këram da koo jiitu dam yéene ko aljanna na ko jëndal mètre carré waaye ki nga xam ne daa am doom yoo xam ne da koo fonk bëgg koo defal dara na ko jëndal mètre carré waaye ki ko mën a gut na fexe ba am lu toll ni tëggum tàkkum picc tàkkum picc nag defe naa ne ku am 1000 francs wala 8000 wala 5000 da nga ko mën am kon mbokk yi loolu laa bëgg ñun ñëpp nu góorgóorlu ci nu góorgóorlu ci bu kenn xeeb boppam bu kenn xeeb lu mu mën tey it kaay ma wax leen assaabiquuna assaabiquuna ulaayika almuqarrabuuna yàlla ne bu ñu wootee ñu njëkk a jóg ñu njëkk a daw ñu njëkk a jiitu ñooy gën a jafe kenn baal ma rek ma nettali yow xise boo xam ne Ibrahima Kébé ma ko yem al na daa am borom alal du bëri doole di buur yëkkati ne day tabax jàkka waaye nag annoncé da leen maay buur dëkk bi bu fa kenn kenn kenn def dara ci sama jàkka ji man dong maa koy tabax. yéen may déglu wala déglootu leen ko ma ne ñiy waxtaan laa bëgg ñu dégloo waaw kay ñooñu li ñu def am na solo dañ ko laaj jigéen ñi naan su féete ca ñoom ñuy jox liñ bëgg a mu ne buur bi nee na jàkkaar ji bu ci quinze centime mooy def lépp buur bee jënd suuf moo wooyi maçon am moo fay architecte am moo def lépp lépp lépp ba ci tàppe defar karo su annoncé na day ubbi jumaaji ji ne nak ñi ko wër jumaaji bu ngeen démé ci buntu ba na ngeen ci taf sama tour sama tour man diwoma jur diwoma jur may pour ma tabar jàkka ji def sanga tëdd dama di ko guddi kenn am ñuko jagat jagatee ba ci buntu jàkka ji effacer lepp effacer turam ba mu jeex bind ca turu ben soxna neena bur bi yewu wote naa comme gént la de moom mën naa am naa banoon rek gént ga répété wu ñetti yoon ba ko ñeenteel góor gi woote assemblée générale dëkk bépp daje réew mépp daje mu ne laajal leen ma ma tooñ ku tudd soxna Aysa Seck fan la ne ñuy wër dëkk bi di wër dëkk bi ba fekk benn maire buy jaay jaaf ca koñ ba di ko néew doole di ko xaw a taam ab départ ñu ne ko yow noo tudd mu ne soxna Aysa Seck ñu ne kaay wuy buur damaa bëgg nit ñi joxe nga xam ne li ñuy joxe bariwul lu mu néew néew yàlla dara rëyut ko moom waaye dara tuutiwul ko moom soxna ay sa sekk ñu ne ko kaay wuy buur buur ñëw na ko damaa bëgg nga wax ma loo def ci sama jàkka ji mu ne ko dara man damaa am lu ma lekk bay def ci jàkka mu ne ko ana kay jàkka ji maa ko tabax bi ko bëggee indi rek léegi bind ci sama tur ñeenti yoon gis naa ko ci gént ma naa ci def sa tur damaa bëgg nga wax ma loo ci def mu ne ko defuma ci dara mu ne ko boo ko waxul nag ma tëj la wala ma rey la wax ma loo def soxna Ayda fekk na fa am na bis de mbaam ya doon wàcce suuf ma fekk mbaam moo xam ne siyoob ndox ne ca kanamam ma jottali ko ko ma puusal ko siyoo ba ba mbaam ma naan ba mbaam ma naan ba man di ma delloo waat siyoo ba loolu laa def ngir yàlla loola it ba ma koy def yàlla dong a taxoon lu kaw koy liy wax ci kon nañ def sa tur ci tur jàkka kon mbokk yi ki puusal mbaam mi doon sëf suuf ci jàkka ji yàlla jox ko yoolub jàkka def kon yow mi joxe ñaari junni yow sama tante moomu jàkkaarloo moom bàjjen bàjjen ma leen yow mi joxe ñaari junni da ngay am da ngay am tiyaab yu tel noonu maa ngi guddal salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. macha allah. dafa am solo. imaam dafa def lu am solo mu diir mooy joxe na numéro.